incident bu metti rek moo am niki tey ci alxames bi juróom-ñeenti fan ci weeru mai foofee nag ci aéroport international Blaise Diagne avion bi di vol AC301 nag boobe bu compagnie Air Sénégal amoon doon dem foofee nag ca Bamako dafa daal di impliqué wu ci benn sortie de piste bi nga xamante ne si nag lors de sa de décollage ay booru une heure du matin bu ñu sukkandikoo ci communiqué bi nga xam ni la cellule de communication bu aéroport international Blaise Diagne ci avion boobee nag di B737 300 dafa daal di affrété auprès de la compagnie étrangère s'est immobilisé en dehors du seuil de 19 de la piste boobule incident nag daal nay tax ay blessés yu bëri daal ci am lu toll ci onze nag ci ay blessés ci soixante dix huit passagers yi nga xam ne ñoo nekkoon ca boobu boobule avion dont ñeent ca ñooñee sax nag daal nañ cee daal di am ay blessures yu grave wante yi te am yeneen six personnes yi nga xam ne ci ay passagers lañ ñu nekkoon ca boobule avion ñoom ñooñu sax nag daal nañ cee amit ay blessés légers. actuellement nag ñi nga xam ne moo di euh, waa service médicaux bu aéroport boobee nag daal nañu daal di def ab plan d'urgence ngir saytu ñooñi service d'urgence boobee sax nag daal nañu amal ay évacuation wante it daal def ay prise en charge yi nga xam ne nag moo di passagers yi nga xam ne daan nañ cee daal di am ay gaañu gaañu ba tax sax nag daan nañ cee daal di ubbi ab enquête ngir ñu daal di mën a déterminer circonstances yi nga xam ne moo waxal boobu boobule incident wante ñi nga xam ne nag ñoo di ay spécialistes de l'aviation ñoom tamit ak ñi nga xam ne nag ñoo di les représentants de la compagnie aérienne ñoom ñu ne nag ñu nga woon ca lieu boobee ngir mën a examiner li nga xam ne nag moo di lee données du vol wante it introsé wu ci membre d'équipage bi. ba tax boobu la incident nag daal nay tax aéroport Blaise Diagne boobee nag ñu daal di koy tëjandigum ba rek fii ay waxtu rek fii ay heure dinañ ko daldi di ubbiwaat ginnaaw nag bu ñu daal saytoo li nga xam ne nag moo di les dispositifs de sécurité yi nga xam ne nag dinañ ko fas yéene jël foofee. subhanallah alhamdulilah let's go sir let's go that's Alhamdulillah. Ça va exploser. Hein? Ça va exploser. Ça va exploser. Euh, nous sommes des vaisseaux. T'as vu, j'avais dit. Ah, Mais filmez ça c'est un truc de fou. Ce qui nous arrive là, c'est un truc de fou. Avancez, avancez. Oui. Avancez, avancez. allez passer, monsieur. Monsieur, ne prenez pas du film, allez-y. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Alhamdulillah, Rabbil Alamin.

Take oh. easy. Don't worry. <laughs> no, Christian oh. is ah, okay. Don't worry. You do the best. Christian. Christian. Christian, come down. Eh. Tous les passages, vous êtes, ils étaient au oh, point de 73 ans Non, beaucoup, beaucoup Parce que plus. même j'ai vu même une dame qui était tombée là-bas. Je l'ai vu là-bas. Oui. Là je

Thank you.